di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ñi ci armée yi yal na leen yàlla jéggal waa barsàq yi ñu nekk ci hôpital yi yal na sunu borom fëgg seen bopp ñu dellu ci seeni kër ci jàmm ci barke alquran mbokk yi ñu ngi leen di laabire tuub dellu ci suñu borom ndax ab jàmm waru cee jóg moom waaye saa su nekk war na koo dolli ba tax na fan yi ñi ngi nemmeeku nit ñi dem gi ñuy dem dem gu méttee méttee métti waaw mu ngi mel ni bëgg tukki ba tax na ñi fi te te bëgg am ak ak gudd fan ñi ngi leen di laabiré yoo xamante ni képp ku yàlla dogal nga def suñu borom may fan bi ci am genn xasida goo xam ne sëñ Tuubaa ñu koy wax képp koo xamante ni yaa ngi koy jàng insha allahu rabbi sunu borom dana la may gudd fan bi ci des muy istixfaar muy astaxfirullah am na ci yoon woo xamante ni képp ku koy liggéey bu soobee yàlla sunu borom dana la may gudd fan mooy adadu nafsi bi mooy 1947 da ngay jàng 7 jàng 40 jàng 900 jàng 1000. waaye diggante bu nekk aaya boobu nga ciy def istaxfiru rab fa qultu istaxfiru rabbakum innahu kaana afaaran yursil sama aleykum wa yumdidkum bi amwaalin wa baniina wa yaj'al lakum jannaatan wa yaj'al nga def ko benn maanaam boo jàngee juróom-ñaari astaxfirullah def aaya bi benn yoon jàng astaxfirullah ñeent fukki yoon def aaya bi benn yoon jàng astaxfirullah 900 fois def aaya bi benn yoon jàng astaxfirullah 1000 fois jàng aaya bi benn yoon léegi nag boo noppee nga jàng sóoratu noox benn yoon jàng benn salaatul fatiha képp ku koy def dangay ngay gudd fan képp koo xamante ne ni yàlla dogal nga nga mën a wut téeméeri xeer xeer yu ndaw yi nga ñëw ci nga gas benn kàmb nga jël limu at yi nga am maanaam bu fekkee ne ñaar fukki at nga am da jël ñaar fukki xeer sànni ci biir kàmb gi li des ci xeer yépp benn bu ci nekk nga tari ci benn kursi yu ëf ko ci xeer bi ñaan yàlla gudd fan daal di koy foo xamante ne nii du du du duñ ko gaaw a sulli incha allahu rabbi tamit sunu borom dana la may gudd fan. ñi nga xam ne ñi ngi dund nañ fi daaw seen bopp nit ñi talatuñu kenn ku faatu fàtte nañ la douze mille bismillahi rahmaani rahim képp ku ko def boo faatoo di nga dem àjjana ki ñi nga xamante ni nag faatu nañ ba dem nañ leen ñaanal jëlee naa fu wér ni képp koo xamante ni def faatu na nga dégg ko nga defal ko ñaar fukki bismillahi rahmaani rahim benn faatiha ñeent fukki suuratul ixlaas ak benn kursi yu kenn mënu koo teree dem tabbi àjjana dañu ñu gën a lu ci di def ay salaatu ala nabi salaatu ala nabi mooy tax nit ki jege yonent bi dem àjjana sori safara na nit ñi góorgóorlu ci salaatu ala nabi beneen bi ci des nag muy jaamu yàlla yàlla moom boo ko jaamuwul mu bindal la loo jaamu soo ko ragalul mu bindal la loo ragal gars nañ nañu ragal yàlla nan jaamu yàlla nan topp yàlla ñu dimbalante te bàyyi waxante wax ju bon wax ju ñaaw adduna bi léeg-léeg da ngay nekk ak nit wan ko ginnaaw sax ñu ne la ñu ne la faatu na kon nañu gën a góorgóorlu ci tuub ak sàkk sarax képp ko mën nga taxaw ci balance nga peese sa jëmm nga jënd euh, maanaam bu dee da nga peese nekk cinquante kilo nga jënd cinquante kilo dugub wala cinquante kilo ceeb wala cinquante kilo mboq nga saraxe ko te yàlla rek tax nag képp ku ko def rek suñu borom dana la musal ci mboolem balaa ak yi xew ci àdduna bi vidéo bii nag képp koo xamante déglu nga ko ba ko na borom guddal saw fan ba nga am te mu ak xéewal ak wa sallallahu ala sayyidina wa sallam wa alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërë ngeen jëf bul cliquer si abonné ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ nga mën am Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu